mafatihal bishri wal amni fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna auzu waa télévision mafatihul bisri wal amni wal janna ibrahima sugu di taalibe sëriñ saalihu waaye ñu koy wax mahmoudan sugu bokkoon ci mag ñi daan ànd ak sëñ Saliou yàgg lool fii ci njëreem ñoo ngi nag fii eh, ngir seet si ma ngir bëgg ku leen xamal ci lu ma xam ci sëriñ bi ak sama diggante ak sama maam ak sëriñ bi ak li ma xam man personne man sama jëm bopp ci ci sëñ Saliou eh, relation yooyu eh, lu yàgg la ndax sama waajur man sëriñ Tuubaa moo ko tuddee yonante bi daa bokk ñi juddoo fii njëreem ci mujjug sëñ Tuubaa wax nañ ne sëriñ bi ci mujjam ku judd rek yonent lay tudde loolu ci kéemaani sëñ Tuubaa la euh, baayam moo ko joxoon sëñ Saliou booba euh, ku ndaw la ci tu euh, tànk la yàgg lool daan liggéey daan daan daan daan ko liggéeyal gëmoon sëñ Saliou lool ci mit ku dul sëñ Saliou li may wax nag ku dëkk njaareem ca xam ko danga xam ne moog sëñ Saliou yàgg nañ lool lool lool lool lool ba tax na euh, sëñ Saliou moom ngeen di wax yàlla dogal mu mu feeñi fii njëriñ euh, ci Porokhane mu barak euh, daan na wax ne njaareem li tax mu gën koo bëgg mooy fi la njëkk a gisee seexul xadim fi la gënee àdduna fi la njëkk amee makkaan moo xamante ne ni ci ci turam la ne Serigne Saliou waxtaan ci moom yomb na yombut ndaxte day koo xamante ne nii ni ko nit ñi di waxee mooy seexul xadim ndax mujj gi mu fi mujj di sëñ Tuba loolu da cay feeñ ndaxte sëriñ Tuba 75 ans la dund sëriñ Saliou bi mu amee 75 ans la doon la la wuutu seexul xadim ca waxoon na ne eh, dinaa ñëwaat doon Saliou ngir ngeen eh, ngeen ko ngeen xamat eh, ne may may moom mooy mooy mooy man ci gàttal. Eh, sëriñ Saliou day jëmm joo xamante ne nii yërmandeem àdduna eh, bépp eh, ràññee nañ ko ndax loolu li ci firnde man mii bi ma nekkee ci daara ji fii ci njëriñ am na bis ñun tànk yi boobu ay tutànk lañ ay fukki at ay juróom-ñeent at lañ am ñëw di ko siyaare bi ñëw di ko siyaare am na benn mag mu ñuy dàq sëriñ bi ne ko bàyyi leen bi bi mu ñu bàyyee sëriñ xaalis mi ngi daan dégg mu mag ma bokkoon ca mag ñi wax na ko sëriñ Tuubaa de euh, mas naa wax ne gone gu juddoo njaarim moo gën mag mu jaamu yàlla junne duñ nangu keroog sëriñ Saaliw dana ko xaali mu ne ko mbekk mu ne ko loolu sikkuut ca loola néewut luñ ma nettali loola damaa toog sëriñ bi ñu ñi lañ doon dàq ci yërmande jooju ma leen wax kon ci gone yi euh, loolu kon lu feeñ la ci moom euh, li ci des mooy sëriñ Saaliw ci boppam am na bis ma ànd ak sama maam man mii ñëw di ko siyaare moom ku bëggoon euh, ñi nga xamante ni dañoo fekkoon nag Seexul Xadim euh, bu xamee ne yow mi fekk nga Sëñ Tuubaa lu kon lu bari boo ñëwee dalay fonk lool ndax day bëgg nga waxtaanal ko ci Sëñ Tuubaa sama maam di waxtaan ak moom ci Sëñ Tuubaa ne am na bis Sëriñ yu yónni ñu ca Ndakaaru euh, moo ay waa këram bañ demee sama maam jooju mu ngi tuddoon sëñ Ma Njaay sëñ Mandiaye àndoon ak sëñ Abbas sëñ Abbas ak sëñ Mandiaye ñoo bokk ndey ak baay euh, nee na bañ àggee yàlla dogal sëñ Abbas làqu yàlla dogal mu nelaw ci amuñu ci mënuñu ko indi nee na jamono yooyu sax daawuñu mën a néew bu faatoo Ndakaaru duñ ko mën a indi fii ci dañ ko fay daal di koy fa lañ koy kii yemale. nee na bi ñu ko fa dencee bi ñëwee sëñ Juba wax ko ko bi ñu joxee yónni ba noppi sëñ bi ne ana Abbas ñu ne ko ah moom day dafa làqu. Euh, fa lañ ko mujj denc sëñ bi ne leen kaay leen ñëw mu ñëw mu jël euh, yére yi bees tax dagg ci mbub dagg ci mbubb mu ndaw daal ci def suuf ñaan ci ne bu ngeen demee ngeen gas ba jot ko bu ngeen ko jotee ngeen ron ko ci njëganaayam sama maam nee na bañ àndee dem nañ ba ndakaaru gas dañoo gas ba gas luñ mënta woon a gis kon ci kekk bañ gasee gis ñu jëmm ja ñu ñu ñëwaat ci sëñ Tuubaa bi ñëwee sëñ Tuubaa ne ko ñun de gas nañ ba gas luñ gisuloon sëriñ bi ne leen bu ma leen waxoon na leen indi naa ko fii ci Touba ngeen weddi ko moo tax ma ne moom moo tax bëggoon ngeen xam ci lu leer leer kon loola xam boo koro ba ñu ko nettali Sëriñ Saliou Sëriñ Saliou ci ci ci ci bëgg mu bëgg Seexul Xadim dafa jooy yuuxu jooyal def xaccet ndeysaan xam nga loolu kon lu yéeme la Sëriñ Saliou day sëñ Touba sëñ Touba gim gim doon euh, wax nañ ne fii ci njëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall mas ko fee fekk booba tu tànk la mu nuyoonteeg moom. mu ne ko ana kooku mu ne ko man la Saliou Mbacké sëñ Saliou ko amoon teggin la moom mu sa wax boppam man la sëñ Saliou danaan man la Saliou rek ci teggin yi maam Cheikh Ibra daal di sëñ Tuubaa dégg leen na ko maam Cheikh Ibra mu ne ko Mbacké mu ne ko ana lu koy looy wax rek mu ne ko ah jëmm ji day waxal di ko laaj turam mu ne ma Cheikh Saliou la tudd sëñ ne ko Cheikh Ibra mu ne ko Mbacké mu ne kooku de sama doom la sëñ Cheikh Ibra daal di jël loxo bi poche bi làmb ko génn ci ñeent fukki dërëm jox ko ko addee sëñ Saliou nee na euh, loola di dox dox ba sëñ Modou Aminta Fall wax nañ ne ñeent téeméeri millions yi mu mujj jox sëñ Saliou sëñ Saliou xamal na ko na ko lii damay fàttali ñeenti ñeent fukki dërëm yi ma sa maam Cheikh Ibra njëkkoon jox ci njëriñ nga xam ne moom it sëñ Modou Aminta Fall kon koy kenn xamul mu doon day kiimaan goo xamante ne nii euh, ci yoonu maam Cheikh Ibra kenn xamu ko ñoom ñaar seen liggéey ñun ñi ko fekk fii ci njëriñ am na liggéey boo xam ne liggéey nañu ko liggéey boo xam ne kenn mosu ko gis xam naa loolu tamit benn xabale doon ci ci kon ci waxtaane sëñ Saliou daan def bu gàmm gii ñu fonk masaan a jot kenn ku nekk umpale wul ne kër yeneen yi yëpp ci kër islaam yi fi nekk yëpp daan fa yóbbu ay xéewal yoo xam ne kenn xamul toll moom ku sagaloon seexul xaddim la ci liggéeyam bi ndax moom daanaka ñi nga xamante ne woon sax bokku ñëwoon euh, tarixa ñooñu la gënoon a fonk ndax ñoo lam daan lam daan jëflante ak ñoom donge yi boppam yi sax mosuñu ko xam loolu lépp lu mu jubloon muy sagal seexul xadim sëñ Saliou daal ci gàttal sëñ bi nit la koo xamante ne nii euh, daan wax ne yàlla mi nga xamante ne nii moo bind mbindeef yi rek moo ma ci ëpp euh, ñoo ñoo ñoo ma gën a kii maanaam fonk fonk doomu aadama maanaam kenn mun la ko wax ndax njëriñ gi mos a ñëw. xéewal yi kër yëpp lan dugg genn kër gu ne umpale amut nga xam ne bu masaana wàcc njaareem danaan sama dëkk la wax na ne sax bu am lu mu yëg ci yaramam bu ñëwee ci njaareem euh, day day day maanaam bu masaana ñëw ñëw ci njaareem euh, fii lay gën a yéege ci moom jàmm waaw ndax nee na suufu si njaareem yëmut benn suuf ndax suuf soo xam ne sëñ Tuubaa jaamutu yàlla fukket ak juróom sëriñ Saliou Mbacké feeñ fi àdduna wax na ne jaamu na fi yàlla ba fépp suufu ci nekk alxuraan la la la la la la la taxawe kon suuf su njaareem euh, wàcc gi fi suñ seeri wàcc rek xam nañ ne njaareem mënut a yem ak beneen dëkk. naa net li bi xista boo xamante ne nii soxna wàllu Mbàkke mas na ma ko wax ci euh, ci moom nee na bis euh, mas naa wut pay yëru yu rafet Sëñ Blaat ñëw fi soxna si jox ko Sëñ Eh, ñoo wax ko sëñ Saliou bu ay jamono sëñ Saliou ne ko man de am na ay jamono jamono naqar na loolu wër na àdduna wër wër naa ci réew fu bare bare bare màggal googu ñeenti junni la yor bi ko sëñ Abdou Lahad yónnee ndaw wax ne ko da koo soxla ca saasa kon la ko jox ci année ba ca des mu yaraat lu mat million joxaat ko sëñ Abdou Lahad addiya nga xam ne mu wax soxna si ne ko milliards yi ñu yi nga gis li ma ko may lenn mayuma ko loolu lu ma am rek bu ko jaay mi bëggee ma jox leen ko xam nga loolu ci mi lu yéeme la sëñ Saliou wax na ne euh, danaan def bu liggéeyee day jël ay jamono li mu njëkk a def day jël xaaj bi da daal koy joxe mujj sax xaal jàpp ko mu ne sëñ Tuubaa kenn di ko jox dara kenn du ko liggéeyal bu noppi di ko xaaj ci digg bi di ko jox genn wal gi di jël genn wàll gi sëñ Saliou li mu fi nekk lépp alalam musu koo musu koo yor lu mës a liggéey loolu li may wax mbàkki mbàkki yi xam nañ ci dara lu mës a liggéey bu liggéey bi paree ki fi nekkal Seexul Xadim la koy jox bi ñooñu demee ba dem ba xam ne moom doo nga fi ne di sëñ Tuubaa sëñ sëñ Saliou gi moom mi ngi leera ci ne li naan mooy sëñ Tuubaa leera ci ne sëñ Tuubaa bi mu fi nekkee doon kenn fii ci njëreem eh, di dem a njaboot gépp nekk fi ñuy dem a dem ba ñëpp dem bàyyi fi sëñ Saliou kenn kooku mu sëñ Tuubaa ne woon dema demaat ba nekkaat ci moom loolu kon leer nañ fii ci daare alxuraan yi fii ci njëriñ danaan def bu ñëwee ñam yi gën a baax ak yi ñu gën a fonk da ko daan jël di ko yóbbu fii ci daare yi nga xamante ni dañuy jàng alxuraan nga xamante ni sëñ Saliou euh, li mu yoroon ci ay dong kenn xamul toll ca dong yoo xam ne ni ku feebar moo lay faj ah, maanaam moo lay xottil yére loo bëgg maanaam sa waajur dara du la jot mu leen nañ ko wol waajuram lépp moo ko yoroon ay junni junni donga xam nga loolu sëñ bi loolu lu kéemaay la nga xam waaye yàlla la ci liggéeyal kon kooku jar na nii ngeen ñëwee fii ci njëriñam euh, jug ngir sam wut wut ay ay jaar-jaaram loolu lu ngeen war a def lu ngeen lu ngeen lu ngeen war a def la kon ci def ngeen ko euh, te yaakaar naa ne da ngeen ci tasee xéewalu seexul xadim ndaxte sëriñ Saliou kenn mënu ko waxtaane ci ñëw fii ci njaareem ndax nit ki boo ko bëggee xam dangay ñëw ci dëkk ba mu dëkk ñam dëkkal ñoo ko mën a xam waaye ñim dëkkalul xëy na dañ ci xam walla waaye kii xam ne moom la dëkkal kooka lam mën a xam ci sëñ Saliou ñeneen ñi nga xamante ne dëkk ñoo ngi ñoom mënuñ koo xam dana bokk ci jàpp gi mu jàpp njaareem juddoo gi mu fi juddoo ak li fi sëñ Tuubaa mujj bu leen fàtt na njaareem gi nag sëñ Tuubaa fi la ko màggal gi fekk ndaxte weeru wi weeru màggal gi mësaana bëgg a jub si sëñ bi day jàppee ne ay yàlla da ko ci tegaat ay yu yëm yu gën a euh, yam ko daan teg far yàlla dogal at mi mujj mi suñu borom xamal ko na ko lépp jeex na fii la sëñ Tuubaa njëkk a màggale sëñ Tuubaa fii la njëkk a fii la mujj wooree fii la mujj jànge alxuraan fii la mujj jullee fii la mujjee waxee naan sama borom nee na ma nangam fii la fii mujj lépp kon dëkk boobu jeexitali sëñ Tuubaa yi fi yi fi am euh, loolu bokk na ci li sëñ Saliou tax mu gën a bëgg fii dëkk bi ndax njaareem euh, pàkk bii ñuy wax fii ci kër gu mag sëñ Tuubaa mi ngi ko tuddee bu xaatu mu barak pakk la boo xam ne dafa nekk park bu barkeel wax nañ ne fii sax bi ñuy gone ñun fii ci njaareem ba fii mu waxee yow ñi xam secret bi lu la mas a dal lu mu tawat lu mu rëy rëy rëy boo xëyee fajar nga wër ko fii fii sëñ Tuubaa ne woon tawat jooju boo xëyee suba da ngay gis ne day dem ba jeex takk fii li fi sëriñ Tuubaa def mën naa def ko ci benn dëkk ndax fu sëriñ Tuubaa mujj jullee mujj faa defe lépp foofu yaakaar na mu tey ak fenn wax na ne fii ci njëreem armeel yii sëriñ Tuubaa moo ko ci tànk boppam wax ne kuñ fi denc suba nga àjjana ngay jëm bu dee ngoon la nga reer àjjana loolu amul fenn fu ko sëriñ wax fii ci njëreem la ko wax rawatina nag ku tedd ki nga xam ne mu mujj di sëriñ Tuubaa di Cheikh Saliou Mbacké mujj njëreem kon loolee bokk na ci li nga xamante ni sëñ Saliou euh, dana tax mu gën a bëgg fi njëreem ndax njëreem bu leen fàtte ne euh, sëñ Abdourahim sëñ Madem euh, sëriñ Jéeri Warane Sougou sëñ ma lemin Diop maanaam mag magi sëñ Tuubaa yëpp fii lañu ko fekk si woon ñun ñii di wax ñun suñuy maam ña nga jóge woon ca Kajoor ñëw tax ñu dëkk fii ci njëreem ñëw fekk si fii Seexul Xadim ku mu dellu ñu fii kon njaareem day dëkk boo xamante ne nii mujjug sëñ Tuubaa fii la amee boole ko ki mujj ci sëñ di di di di fii la fii la fekk baax kon day dëkk boo xam ne kenn xamul maanaam li ci sëñ Tuubaa roof ak lim ci euh, kon la ci ne. waa sëñ Saliou man nag yàlla dafa dogal man fii laa jàngee alxuraan ci sëñ Mor Mbaye Cissé euh, ni ma la ko nettalee sama baay euh, bi muy may gone daan na ma yóbbu ci sëñ Saliou daan naa fa nekk ab diir waaye alxuraan moom njëriñ laa ko jànge eh, yàlla dafa dogal nag ba may am juróom-ñaari di di ko eh, ci sëñ Saliou laa moom laa xam yàlla dogal na sax bi sëñ bi làqoo man mii ngeen gis eh, sëriñ Moustapha Saliou woo na ba ma ñëw yàlla dimbali na ma ci mit ma fekk lépp ndax loolu xam na ne maam yi ni mu jege woon ñun ak ñun ak ñoom niñ niñ niñ jaxasoo woon loolu xam na ko bis boobu sax bis bu yéeme la ndax man fii laa toog ci salle bi sëñ bi woo ma ma ñëw yére yi sama waajur daan sol koroog moom laa sol koroog bi sëñ bi dem àjjana ca loole laa àndeek moom muy muy lu yéeme muy mujjug Seexul Xadim loolee taw loolu na maa ngi ci ñaanal sëñ Moussa Sall yi nga xamante ne nii euh, bari na sax ñu ko umpale moom sëñ Moussa Sall yi naa ci wax tuuti rek ndax yàlla dogal na gannaaw sëñ Sall yi man ci moom laa nekk yeesa ci moom Euh, ndax sëñ Moussa sëriñ Basiiru Sarr jaamu sëñ Tuubaa euh, mas na ma sëñ Moussa mas na ma yónni ci moom guddi ba ma demee boo wax yónni ba noppi euh, sëñ Basiiru na ma kaa ma nett la tuuti diggante sëñ Saliou ak sëñ Moussa Saliou ndax nee na sëñ Basiiru Sarr na ma am na génn guddi dama toog sëñ Saliou ba mu guddi lool ñuy waxtaan ba tudd sëñ sëñ Moussa Saliou mu ne ko Basiiru mu ne ko Mbakke mu ne ko Moussa moom nag dama leen cee bëgg a yee dama leen cee bëgg a yee moom ñu bari ñu ngi dox sama digganteek moom waaye xamuñu ne de bu sañoon dinaa fi liggéey loo xam ni nii benn xalifa sëñ Tuubaa ah, musu fee musu ko fee liggéey ku ma yéene jàmm la waaye nit ñi ñu ngi ñi ngi dox sama digganteeg moom ca xamuñu ne Basiru mu ne ko Mbàkke Moustapha moom de maa ngi moom yem sëñ Tuubaa ne nii ñaari kii baaraam yi na ëppale ma ko dara sëñ Tuubaa koroog sëñ Saliou kon kon dafa jooy moom day nekk dafa nekk jàmbar joo xam ne nii moom it ku liggéeyal ndaxte sëñ Saliou doo ko waxtaane ci waxoo sëñ Cheikh Saliou ci waxoo soxna waalo mii taawam ci waxoo sëriñ Moustapha Sali ndax ñooñu ay mag lañ ca jàppale nañ ko liggéeyal nañ ko ndaxte jumaa ji e, ni ci sëñ Saliou taxawee ak sëñ Moustapha Saliou loolu leer na waa àdduna bépp ndax ak njabootam yàlla dogal na na feeñ nañ ci liggéeyam ndaxte bu dee xam-xam la day wax sëñ Saliou moom ki li sant Mbàkke ku ko sut ci xam-xam mënoo koo gis ak njabootam ci mit du dara tax ma di ko wax li may wax yi àddina ak may déglu sëriñ Moussa Salim yi génnul fii njaarim ji la jàngi alxuraan ca li ci moom eh, maanaam xam bi kenn xamum toll amul lenn loo ko mën a laaj te mun la ko wax ca loolu njaarim ji la ko jànge kon ñu xam ne sëñ Saliou ak alxuraan sëñ Saliou ak ak ak waa njaarim maanaam niñ jaxasoo woon mënu su wax kon kon la kon mbir ma kii. waa sëñ Saliou li ma gën a marqué ci moom mooy daanaa gis lu bari muy jooy moom sëñ Saliou daanaa wéet di jooy xacat am na bés am na sëtam bu ñuy wax sëñ Saliou Mbacke mas na wax na ma euh, mas naa toog sëñ Saliou bu guddi am donga yi ndaw yi tout tànk yi euh, am donga bu yeewu rek kon di jooy sëñ bi ne ko loo jooy. mu ne ko dara dafa néew sama biir de Mbàkke damaa xiif sëñ bi dal di jooy joy métti ànd ak gone di joy daal di woo bëkk néegi ne leen lu fi ne ci ñam kon na génn nañ yee ñëpp ca booba sax naam xale bi sax xëy na xiifut waaye daa yeewu ci ay nelaw rek loola nekk ci xelam mu wax ko waaye sëñ bi daa ànd ak mu di jooy ragal gi mu yàlla eh, daan daa wax ne day eh, sàllaaw na ngeen ma jéggulu yàlla sama borom wax na ko ba ngeen ko da ngeen ma sëñ Saliou ku kenn ku xam ne ku ragal la koo xamante ne nii mosoo koo gis mu tëdd ci néeg néeg bu ñu def euh, climatiseur wax nañ ne bis yooyu mas nañ ko matt lool yoo ay yoo ci néeg bi am kilifa gu koo xamante ne nii moo jël luy luy luy fexe ba kii yooyu ba yooyu daw sëñ bi mu xëy suba guddi ga gis na yooyu nekkatuñ ci néeg bi mu ne xanaa daam lu ñu fi def ñu ne quoi mu ne noonu lañ ko dindi nga xam ne yéen xam jami xal waraa gis gi Sëñ Tuubaa wax na maa ngi yërëm bépp mbindeef loolu Sëñ Saliou yëmaliw eh, jëfi Sëñ Tuubaa mbindum Sëñ Tuubaa ma daa nekk Sëñ Saliou ndaxte eh, yërëm mbindeef taxul ñu ne doomu aadama la mbindeef mooy lépp lu am ruu rek da nga koo yërëm muus mi nga dëkkal sax Sëñ Saliou boo demee këram ay muus daawu fa jeex te daleen daan jox lekk picc yi daleen daan jox naan ku dem bay xont ay picc ak ay mala kooku kon waxuma ak doomu aadama yi Sëñ Saliou ko mas miin di boo ko masaane miin buñ la fuñ la masaan yóbbu nga daw ndax jëmmum ju sell ji ak mbaax gi ak laabiir gi kenn mu xam seen saa yi maanaam di bëgg a xam keneen ca nag baatin bi saayir soos noonu meloon baatin bi noonu la mel ci moom man mii de dinaa leen nettali xis bi ma jógee ci daara ji ba dem ci réew yi Amérique amoon naa fa ay jafe-jafe jafe-jafe yi métti euh, maanaam booba dañuy jaay rek ñu téye ñu bi ñu téye ñu xamal nañu nañu euh, bi ñu ma téye man dañ maa xamal na ma njaay mii ngay jaay gën ngaa néew man nga cee gën ngaa néew da nga ci tëdd atu kaso wala gën ngaa bari da nga tëdd cinquante kaso koroog sooy bu si yii ñëpp xam ngeen ko mooy noonu sëñ Saliou bi bi bi bi bi moom laa woo téléphone xamal ko ne ko neel sëñ bi ah Ibrahima Sugo nee na daa jëm ci àtte ci àtte ba boo yeexee danañ ko jàpp ci yow yow nag la yàgg àdduna ak bu ne ma wax naa ko waaye nee na nga rafet ci gën a yéeme guddi googu guddi gi ne suba lañuy laay dem atte sëñ Mouhamadou Moutala Mbakke mii di góor yàlla moo ma feeñu xamamal na ma Ibrahima ma ne ko Mbakke mu ne ma atte boobu nga jëm de bu dee murit saadix nga kenn du la ci tëj ndax diw de bañ koy atte maa ko ñaanaloon bi ma xëyee suba dem ci atte ba bañ ma xooy ba ma ñëw. Euh, juge bi na ma yaa Ibrahima Sougou ma ne ko waaw mu ne ma topp ñu la dara mën nga ñibbi nga xam ne laaj ñu ma sax loo def ak loxo bi mu ñibbisee ci njëriñ ba ñëw siyaare Sëriñ Saliou ci Touba dama ko jox loxo rek mu muñ da def nii la ci a yéeme mooy ba ma toogee toog ba mënutuma dem euh, bis ba ma ñibbisee njëriñ euh, ñëw ci sëñ bi ne ko dama bëgg tukkiwaat ca këyit di jeex baatinu Sëriñ Saliou dong lay wax nag lay nettali bi ma ko waxee sëñ bi da koy daa jàng mu ne ma dama bëgg nga leeral ma ko ma leeral ko ni lépp euh, ko ni mu demee sëñ bi na ma tàllal sa loxo ma ñaanal la ma tàllal sama loxo mu ñaan ñetti ñaan yooyu mu daan ñaan tufli ma may dem ab diir ma dox ñetti jóge mu waat ma ne ko mbakke mu ne ma yàlla nga taseeg ndimbalal seexul xadim wallaahi la xasim billaahi walay taalaahi bi ma dellaatoo ndakaaru kilifa gi ma njëkk a jox passeport diplomatique kon la ma joxoon jamono jooju kon ma ko na ko ñaan nga ame naa ko nekk waaye sama njot nii la def waaw muñ na ma sàllaw de bu loo nekk ma yëg ko ndax man Saliou lu ma yëg bokkut ak lu ma yëgut kon sëñ Saliou sëñ bi euh, waxtaanam du xaj ci ay ay minutes ndax day koo xamante ni day ku jege Seexul Xadim day ku gëm sëñ Tuubaa waaw bis boobu day bis bu rëy ndax yàlla dimbali na man bokk naa ca ca duggoo ba waaye bis boobu euh, ku xam dara xam ne ko xam dara xam ne àdduna euh, ki fi nekkooloon suñ boroom muy lu wér làqu na bis boobu day bis bu daw yaram boo xamante ne nii euh, duma ci mën a sori naxte euh, bis boobu njaareem gii mu bàyyi ko fekk baax yëg nañu ko àdduna bépp yëg nañu ko bis la boo xamante ne nii Sénégal gépp a yeewoondoo ba suñu sayu làqoo mooy bi mooy mooy ki mooy doomi Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne bi mu làqoo Sénégal gépp yow Europe képp fépp di nekk bis boobu maanaam fekku la nga tëdd ci bilal loolu Sëriñ Saliou donc am keroog Touba bi ñu ko dencee ci une mi demi avant trois heures fees na del mbooloo mu foo teg lay mu mu fees kenn mu si mel noonu keroog président Ablaye Wade sax lu mu jàppoon da ko bàyyi ñëw ñëw ci guddi gi sëñ Saliou mooy seexul xadim ndax dane jox leen ma ndaw ñi ma def la sëñ Tuubaa daan def ca mag ña loolu lu yéeme sëñ Saliou yërmandeem xëyu ci àdduna ñu ngi ñaan nag yéen waa Bichri TV ñëw gi ngeen ñëw njëriñam yàlla mu doon seen mujjug ñëw yàlla na leen euh, sëriñ Tuubaa taxawu jàppale leen ci barke Maodo Bichri ci barke waxab leel xirtaasa wal midaada waxab leel axlaama wal widaada wasalli yaa muyaasir ansiri maxa salaamika bila tansiri ala nabil muntaxa mu faddali wala ali wasawi kulli faddali yaa munsiran ata nabiya sikra salli wasalli wa taxaba sukra lisi laysa lahu mujaari xayril bara yaasi misaay jaari bay lii wax daa bokk ci bis ri moo tax ma lañu yaa faadilan faddalowal xalaaxu yaa man bi faarax ni imlaaxu wajjahtukal yaa mu wali razaaxu kaana bi ma tano bi arsaaxu maa bi nifaaxu an nii maa waja ani ifaaxu bi bi sanaati afaaxu jaa rida wal faws wal ixtaaxu bi kama bi ka talaaxu bi ka maa lugu nasaaxu saxan la ekum axlaaxu maa ngi ñaanal réew mi ci barkeb sëñ Saliou ndax réew mi soxla na ñaan sëñ Saliou la waxoon na ma lu ma yëg bokkut maa ngi ñaan ci yàlla na sëñ Saliou yëg ñaan gi may ñaan yàlla na murid yëpp am jàmm Bichri TV yàlla ngeen ne ca kaw yàlla na yàlla def tawféex ci réew mi def ko ci àdduna bépp yàlla ngeen fi yàgg ñëw yàgg ñëw fekk ci barke sëñ Saliou allahumma salli ala sayyidina Muhammad مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة